Hmm. mais c'est-à-dire dama dama j'ai été vraiment ému. Hmm. ci discours Cheikh Mbacké Amar Cheikh Mbacké euh, dafa ànd ak sérénité. Hmm. Euh, pondération ba pare aussi il a été très explicite maanaam yóbbuwul fitu Sénégalais yi. Mm -hmm. kii waxam bi dafa am lu bari lu mu def. man ci man bokk. Mm parce que dégg yàgg dañ ko dégg affaire bi ni mu demee. mais waxam tey jii euh, dalal bi mu dalal sama xel mooy ñoom fi ñu nekk ñoo ngi ci condition yu baax. Hmm. n'est-ce pas boobu loolu la wax. oui loolu la wax oui. Euh, bëgg nañu ñaanal leen aussi yàlla baax na nee na bu ñu mënul ñëw ñëw waaye bu ñu mënul ñëw it ñu wutal leen beneen dëkk. Hmm. foofu bu dul waan. ñu nekk waan waaw il a waaw voilà loolu yëpp euh, mën na am c'est facultatif. dañu hmm. li am solo mooy. li solo mooy réew mi fii Sénégal li leen war ci wàllu kaaraange maanaam fàggu moo gën faju te muy seen liggéey nii nga ko expliquer dal na xel aussi du dëgg parce que nit parce que tam du Chine yëpp ñoo am feebar bi quand même lii booba wax léegi nii tiital nañu bare du Chine yëpp ñu am feebar bi te Chine dañu am doole États-Unis li muy réy réy di bare bare doole tey boo fa di woon cëpp <laughs> am na mbedd yoo xam ne boo fa jaaree da def defe ni fii ab américain nekk hmm. c'est ça ñu tey fa nag lu bare doole partout dans le monde tey boo demoon Màkka tey jii tey tey tey ñu fay jënd ak di ko jaay yépp chinois yi ñoo ko fa indi c'est donc ñoom ci àddina bi dafa am lu leen yàlla dimbalee lii nag nekk benn balaa benn natt boo xamante ni bi dañu nekk ci axiru zaman hmm. du dëgg mais yàlla mën nañu cee musal am nañ ci yaakaar hmm. musal bi mooy tey jii enfin ku nekk ak fa nga xame rek la nga la nga xam ngay wax hmm. yàlla mën nañ ci musal ci sunu góor yàlla yu baax yi fi nekk hmm. ci jàngu bi hmm. tabarkaal tabarkaal la diine ji xeebu ñu leen nag xeebu ñu leen franchement yàlla mën nañ cee dimbali ba dimbali waale ñu ñu wër ñëpp ndax tey tey tey tey lii nga wax na ci état bi gën a taxaw docteur c'est très important mooy euh, hôpitaux yi nga xamante ni tey jii maara deyim si maara deyim si ñaanuñu ko yàlla su affaire boobu amoon tey jii yi nga xamante ni moo war a réanimer nit ñi war leen a delloo si bu dee ay machine la ay jumtukaay yoo xamante tey ñoo war a assisté ñooñu loolu nguur gi na ci gën a taxaw gën ci jàpp mais nii ngay waxee nguur gaa ngi liggéey comme tey jii ñoo ngi seetu nit ñi dugg ah. di leen seetu nii ñu leen di seetoo sànq euh, sawaay dafa wax loo xamante ni. Papis Diaw Papis Diaw Papis. non Papis bi mooy troisième quatrième fois sawaay. Papis Diaw <laughs> dama Papis Diaw la Papis voilà donc depuis nga baal ma Wolof quoi donc euh, dafa am lu Papis wax sànq mais lu am solo la affaire bu ndaw la. Mhm. tuuti mooy tey jii pourquoi ñu jóge Chine di ñëw fii. Mhm. ah yéen ngeen jël leen. quatorze jours deux semaines. yoo xamante da nga leen di bàyyi ñu dem seen kër. Mm-hmm. pour di leen suivre aussi. pour bu leen dara bàyyi leen di leen bàyyi xel quoi enfin man dama ragal ba nga xamante ni bii tey ji bu doon sama sago ku jóge Chine rek ñu yóbbu la am fuñ la teg waaw da ah, ah. ah, nga ko wax mais dama maa ngi ñëw euh, non non dama dama dafa euh, hmm. euh, ci li papis wax hmm. yeneen dëkk yi ñu quarantaine hmm. waan dañu jóge wala systématiquement moment ku jóge Chine rek. waaw xam nga j'ai pas donné sànq moo tax. par hmm. exemple de Pékin par hasard. jóge Pékin. Hmm. dem Paris est-ce que dañ lay quarantaine en France français dañ lay quarantaine Non, je ne pense non. pas. Non. non. Euh, c'est les seules personnes qui ont été mises en quarantaine ñu jógee Wuhan ak Hubei et il y a Hubei voilà pour faire l'objet de cette mesure c'est c'est en fait pour l'instant loolu xam nga quarantaine mhm. quarantaine mooy nga jël nit ki nga ne pendant cette période dañ koo teg quelque part mhm. maanaam du kenn du fa dem mhm. kenn du génn et cetera lu dul des gens spécialement autorisé et équipé pour jël contact ak ñoom mm-hmm. mm-hmm. bokkut ak isolement bi nga xam ne dañ lay ber pour def ay yenn analyse yi ci war bàyyi la nga peut-être benn question laa bëgg a poser mooy mais mais euh, est-ce que am nañu rapport combien de personnes quittent la Chine par jour pour le Sénégal wala boobu ba tey waaw xawma nag combien de personnes quittent la Chine par jour pour ñëw fii mais mun naa la wax rek chaque jour que Dieu nous recevons le rapport immédiatement di contrôle sanitaire des frontières mhm. mu envoyé ñu ko ñun ñu jox ko fichier bi ñun sama direction lay ñëw day ngeen traité ko waaw ñu traité ko ñu xam ku nekk aussi mun naa wax ne que euh, ñi ñëw yëpp ñu ngi ci 17 districts du Sénégal 17 districts xam nañ ku nekk foo nekk. donc def nañu traça euh, traçabilité boobu. docteur kon ñu tàggoo bu dee xëy na luñ la laajul loo loo bëggoon a wax. merci mm-hmm. xanaa di wax nit ñi rek feebar bu bees la. Mm-hmm. mais nit ñi nañu ànd ak dal. Mm-hmm. xam ne que ñun tamit depuis bi affaire bi amee ñu ngi ci taxaw. ñu ngi ci taxaw. te aussi ñu ngi ci def lépp lu mu ci mun ministère de la santé mu ngi ciy taxaw lëkkaloo ak yeneen ministères yi dañoo am réunion ak comité de crise bi nga xam ne ministre de la santé moo ko jiite ñu koy ñëpp di ci échangé ministère des affaires étrangères di def réunion tous les mardis échanger sur la même chose contrôle sanitaire aux frontières yaa xam ne port poor bateau bu jógee Chine pour egg fii 40 jours lay def. xam nga ne foofu boobu munul am malaat mais nag balaa boobu sax day am les 10 dernier ports yi mu fréquenté. pour mu ñëw avant bateau day ñëw dakaar mun a dem Kaolack wala Ziguinchor munatul nekk dakaar ngay yem ba ñu xam lu nekk lu nekk ci bateau bi. Hmm. donc mesures yu bëre jël nañ ko xëy na xëy na communication bi peut-être toujours xam nga. c'est loo def ci communication rek am na lu dees te aussi réseaux sociaux yi bëri nañu Euh, nit ñi di wax lu am ak lu amul. Mhm. soo déggee lii ñu yokk ci leneen ak mhm. leneen mais encore une fois. nit ñi nañ nekk serein maanaam nañu ànd ak dal xam ne que ñu ngi fii. Euh, te lépp lu ñu mun daal dinañ ci taxaw. incha allah pour taxaw sénégalais yi fi nekk ñi nekk ci tamit bàyyi nañu leen xel. Mhm. di leen di leen masawu coono di leen wax ne aussi nañu ànd ak dar rek bu si yàlla àndee lépp amoon na ay yeneen feebar yu defoon jéye yu ko ëpp. Mhm. mais tey kenn waxatul lu ci jëm. kon nag nañu. jërëjëf docteur euh, Mamadou Ndiaye moom moo jiite prévention maanaam fàggu ci ministère de la santé bu Sénégal. Mhm. Saint-Valentin doo gaaw ci émission bu jeex. pare <laughs> ma soog ah. na gis-gis. mais nag na na barwaay nag.